lay teema ma jëmalul yaay sëriñ Touba sëriñ bi nee kon nag seen xol sedd na guy njabootuk Fadal ñoo ngi toog nii ci sa kanam ci jëwrinam ji di sëriñ Abul Baraka ak jëwrinam Cheikh Mamadou Bachir ak Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne moo yor kaddu kër gi nee na njaboot gi yëpp yëpp nañu nee na waa kër Cheikh Abdoul Lamine Bara njabootu Cheikh Abdoul Karim njabootu Soxna Mbenn nee na ñoom ñëpp tew nañu ci jotaay bi nee na jotaay bi dafa yaatu moo tax mënuñoo lim ñëpp waaye ñëpp teew nañu nee na ginnaaw tew nañu ñoo ngi teewaaleel njabootu Serigne Touba gi ak taalibe yëpp ak mbokk yëpp ndax da ngaa ni ku dem ma dem ku demul ma dem nee na ñoom day fas yéene nañu heure boo gëstoo rek gis leen sa ginnaaw nee na nii nga leen gisee nag na nga ko gisee njabootu Serigne Touba gi yëpp ndax njabootu Serigne Touba gi ku teew fi sa kanam rek mel na ne ñëpp teew nañu kon nag nee na loolu nee na bu yeboo sa xel dal ci ñoom nee ñoom ñëpp benn lañu dañoo bëgg Serigne Touba bëgg bokk ay bëgg-bëgg. di ab taalibi rek nag nee na sax sa xel na dal ci ñoom bu baax a baax nee ñoom day mbàkke dañuy def dara loo xam ne boo ko déggee da nga ci am dara looy xalaat nee na nga ñaanal leen bu baax loolu sax ba faw kon ñoo ngi lay ziyaare ci bis bii nee na soxna su si nga xam ne moo tëdd fii soxna jaariyatullaahi nee na nee na am na ku ne ab tab nee na tab la boo xam ne bii lam yor du jeex mukk ku fa dem ñaanal la nga bëgg rek nee na kon nag Mbàkke li ñuy ñaan mooy nga yàgg fi lool te wér nee na te li nga bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuuba yëpp ak liggéeyal Sëriñ Tuuba ñu ànd ko ak yow foo gëstoo rek gis leen nee na ñoo ngi sa ginnaaw rek sëñ Abo mii yow rek lay déglu loo ko digal mu def loo ko te doo ko tere dara ñun itam moom rek la déglu lum lum lu mu leen digal ñu def ko ndax njaboot gi yëpp benn lañu kon nag seen xol sedd na bu baax Mbàkke nee na mi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba ci barkeb weeru tedd wii ci barkeb Soxna Jaaratullaahi nee na li nga bëggal Serigne Touba lépp nga def ko ni nga ko bëggee ne jàngukaay bii nga xam ne tàmmali nga ko yàlla na àgg ci jàmm ba nga ba nga naalaat yeneen naal yu bëree bëri yoo xam ne bii lépp ci Serigne Touba rek la jëm. nee na sant nañ bu baax a baax njaboot Cheikh Abdoul Fadal gi yëpp a ngi nii toog sa kanam nee na nga ñaanal leen rek Mbàkke ñu sax ci ak taalibe ndax ak taalibe moo dox seen diggante ak sëriñ bi moo dox suñu diggante ak yow itam nee na ndax yaa fi sëriñ Touba kon nag nee na seen xol sedd na guy mbégte moo xam ne bii bala ñu ko bégati dañoo ñëwaat fii sa kanam rek ndax xam nañ fi nga leen teg xam nañ ni nga leen bëggee xam nañ ni nga leen yërëmee kon nag seen xel dal na jàquñu tiituñu rusuñu rëtuñu fu ñu toll rek ñoo ngi am mbégte ak ak féex ak féex mu rëy rëy te lépp yow la sa yow yow Cheikh Amadou Mountakha nee na sa jëmm ji rek nee na nee na Cheikh Amadou daan wax ni nee moom day faral di wax ni Cheikh Mamadou Mountakha ku dégg ay kàddoom boo def taalibe da ngay gën a bëgg Sëñ Tuubaa gën koo wóolu gën koo sop sa yaakaar tey du tas ci moom nee na dégg na kilifa gu wax ni sëñ Tuuba mag ñam nekkaloon yëgit nañ seen daraja bañ tolloog saaba ya nee na am na ku baax ku ko wax nee na koo xam ne mi ngi jotaay bi ne am kooku it wax ne sëñ Tuuba mu ne nitu yàlla am na solo lool waaye ñun nañ doon nit sëñ Tuuba rek nee na loolu kilifa gu mag moo ko wax nee na mi ngi jotaay bi toog kon nag yàlla na fi yàgg lool te kon nag mbakke ñoo ngi nii sant nañ bu baax a baax gërëm nañu bu baax sant nañ bu baax a baax jamono ji nag neex na lool Mbàkke ndax lii ñu am kat mag ñi amuñu ko woon ci Sëñ Tuubaa lépp ngi nii dara du jeex nee na lépp ngi nii rek dara manquéwul jërëjëf Mbàkke sant nañ bu baax a baax jërëjëf Mbàkke wax dara Cheikh Mamadou Mourtada wax na lépp nee na xanaa xol bu sedd guy rek taxawaay bi ak jotaay ci man lool na taxawaay bi ak jotaay bi rëy ci moom lool nee na dal na xelam bu baax a baax ni ko sëñ Mourtada waxee nee na noonu rek la demee nee na ndax lii nee na soxlawul dara lu gën a kawe lii sëriñ bi nee na kon xolam sedd na xelam dal na yaakaaram dolliku na nee na amat na soññ bu rëy ci jëmmam ndax lii seen jéego yii seen jotaay bii nee na bu seetee jëmmi boppam rek dana wax ne jomb na ko ku ci àdduna allahu akbar nee na ndax rëy na ci moom lool. nee na kon noonu rek la demee. nee na ñoo ngi sant bu baax a baax. ñoo ngi sant suñu borom mi ñu boole ak Serigne Touba. nee na sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg. nee na di leen sant di leen gërëm. ci seen jëf ju rëy ju baax ji ngeen jëf. seen taxuwaay bu rafet bii. kaddu yi sëriñ Mourtada yu baax yi kaddu yi sëriñ Mourtada yu baax yi mat sëkk. nee na loolu doy na ko lépp. nee na doy na ko lépp. kon jërëjëf Mbacke. nee nee na moom de xamul lu muy wax. waaye nee na mooy noonu rek. Eh, nee na jotaay bi. jéego yi jotaay bi. jéego yi ak jotaay bi. rëy ci moom lool. nee na dal na xelam bu baax a baax a baax nee na fu mu tolloon rek nee na seen jóogi yi ak seen jotaay bii jëlee na ko foofa yokk ko bu baax a baax kon loolu nee na loolu moom xam na ko nee na moom soxlawut genn yokkute gudul yokkute ak Sëriñ Tuuba nee na jii ak ëllëg nee loolu rek la soxla te lii amul jenn yaakaar ju ko ëpp. amul jenn jëf ju ñu defal ju ko amul jenn jëf ju ko defal ju ëpp ji jëf. tax nee na xam na yéene yi. xam na pësteef bi. xam na yitte ji. nee na gis na taxawaay bi. nee na xalam sot na guy xelam dal na bu baax a baax. nee na mi ngi gën a feddali laxasaayam rek. nee na fas yéene koo ànd ak yéen. nee na xelam dalati lool. nee na xelam dal ca lool feddali laxasaayam ànd ko ak yéen nee na xelam dal na ci lool nee na kon Mbàkke jërë ngeen jëf nee na li muy ñaan rek mooy nee na suñu borom gën leen a sàmm te aar leen te bàyyi leen fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci coobareem te te ak wér jiitu ca gu ànd ak kattan. ngeen gën a mën a nekk ci lii ngeen nekk sax ci dàkk rek ci bëgg Serigne Touba rek fas yéene sax dàkk ci di ko liggéeyal rek nee na loolu rek lañu ñu gis kon nag sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf nee na mi ngi ñaan bu baax a baax a baax suñu borom gën leen a gàttandu ak tawféexi sëriñ Touba ci suñu biir ak ci suñu biti. ak suñu tey ak suñu ëllëg nee na jërë ngeen jëf lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara